ñun way takk way takk deri takk deri voilà yéen yéen a ngi koy gis police yi daaw na étudiants yi dàq nañ police yi étudiants yi dàq nañ police yi ñu topp seen ginnaaw police yi étudiants yi dàq nañ police yi daw nañ euh, police yi étudiants yi récupéré nañ étudiants yi mujj nañu récupéré étudiants yi mujj nañu récupéré li nga xam ne moo di avenue Cheikh Anta Diop bi étudiants yi voilà yéen ah yéen a ngi koy gis étudiants yi ñu ngi. étudiants na. ah